Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu Senegal. yen yéen ñi nga xamne ni yen ñuy seetaan ci biir senegal waye nak ci diaspora bi ñoo leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di ñew rek comme ni ñu amé aada diko def rek e, di wax suñu xalaat ci li nga xamne ni moy décision bi nga xamne ni mom la Cour suprême en tout cas mu doon ne parti bi ñuy wax Pastef comme ni ngeen ko xamee dañoo defoon benn ay recours pour bëgg yoon àtte si li nga xam ne nii DGE dañ ne Ousmane Sonko warul jël ay documents parrain pour fiche parrainage yi yu bëri nag wala en tout ñi nga xam ne ni républicain yëpp amoon yaakaar ne fañ dem euh, yoon dana fa wax li nga xam ne ni mooy dëgg te sénégalais yu bëri nag euh, lii. nekk li nga xam ne nii jox na leen encore rek dëgg si li xalaat si suñu réew wala li ñu seetlu suñu réew muy nekk na réew mi nga xam ne nii yoon doxatu fa ñoo ngi jàpp ay doomu sénégalais si lu neex régime bi fa nekk loolu jarut di si ñëwaat mais ñu xam ne tamit ni ma ko bindee samay commentaire quelque part rek wala samay publication quelque part rek mooy ne fépp fi nga xam ne nii. digg la waroon doon digg nag mooy loo xam ne nii bu musi waree ñëw mu téye ko fépp fi nga xam ne nii euh, ay institution la yoo xam ne nii réew bu doxut wala réew bu amee euh, lu ko lu koy menacé wala lu war a dem fi musiba ñooñu ñoo doon ay ñoo xam ne nii dañ faa toogal république parce que dañ ne les hommes passent mais les institutions restent moo tax nag institution yooyu ñoom dañoo war a neutre nekkal fi askan wi ñu gis na nag euh, képp kuy wax te yàlla ngay tax ngay wax xam nga ne fépp fu institution yi nekk tey ña fa nekk euh, Macky Sall moo leen fa teg te Olof Njaay def na ne ku labul ay bët fu la neex ngay xoole bon ñu xam ne rek ne Sénégal euh, man sama considération bopp sama xalaat bopp laay wax mooy ne pour man Sénégal léegi réew yi gën a yées si àdduna si la bokk ndaxte nag nit moom euh, li di dëgg rek da nga koy wax parce que ñu xam ne nag ëllëg bu ñu demee say élection tamit am na ñoo xam ne élection yi weesu yëpp bala bañ koo def sa xam ne nañ résultat yi mooy génn te gis nañ résultat yi te ëllëg it lu fi mënut amit gis nga recours yu ñu fi def am na ñoo xam ne fa leen teg euh, Macky Sall leen fa teg bu ñu waree wax dëgg it boobaa leen lu neex Macky Sall la ñuy wax du mujj fenn bon ñu xam ne daal ñun senegal euh, nax nañ ñu wala trahir nañ le peuple sénégalais

ay commande arme yoo xam ne nii wax nañ ña ko arme commandé woon du ministre de la justice du ñeneen du ministre de l'arme de militaire yi du leneen bon ñu loolu lépp nit ñi ko ñu koy dénoncé euh, xam nañ ne euh, inventé buñ dara donc ñu xam ne nag ëllëg muy conseil constitutionnel muy ñu naan les sages mu ngi mel ne man tey ma falu fenn rek jël samay xarit wala nga xam ne ña nga xam ne nii ñëpp samay homme de confiance teg leen fa te ñooñu tamit nag duñ ay républicain wala en tout cas li ma neex la li ma bëgg la ñuy def man maa leen fal donc euh, voilà en tout cas dal li ram ci ñak bi la jëm te nag sénégalais yi seen xol jeex bari nañ dem ba réewu Sénégal manifestation sa abatu droit def ko euh, encore une fois nak ñu bañ sax nek fi di dénoncer parce que ñin ko xex wala ñi nga xamné tay ño nek bop sénégal euh yaakar na ne lu leen neex lañuy def respectuñ peuple sénégalais mom lolu ñu ne wax nañ ko léna ñi nga xamné nak ñom encore une fois ñom ruusit yi jógee si régime bi wala am nañ yaakaar wala liñ faral ak régime moo tax ñu gëmm lii de mën naa ko teg sama loxo si kaamil waat ko ne bu doon Ablaye Wade moo def lii genn wàll gu Macky Sall adduna bi tukki te mën nag li ma jaaxal mooy lan moo tax loo xam ne ni munuñ musuñ ko may Abdoulaye Wade mi gën a nekk mag Macky Sall musuñ di ko nangu nag Sénégalais tey di ko may Macky Sall ndax Macky Sall de am na fu mu jaar ñu ñu bëree bëri waaye loolu lépp nag Sénégalais gis nañ ko te li neex si mbir mi malgré la loo gis àdduna bu loo gis rek les fleurs du mal mooy lii xew Sénégal dafa tax ba sénégalais yu bëree bëri ndeysaan bi seen bët si lu baree bari ku defe na nag li may wax ay caaxaan lañ dem si kanam léegi nag li am solo mooy ëllëg lu mu yàgg-yàgg képp ku ñëw ba régime bi pare ba régime beneen fi ñëw nañ am commission yoo xam dañuy ëllëg lu mu yàgg-yàgg ma baamtuwaat ko rek régime bi fi munta ne bu régime bi fi jógee ba beneen ñeneen ñëw fi nañ leen teg commission bu leer nañ wax ma nag ay venger wala leen waaye lépp li fi xew lu jaarul yoon commission boobu na ko dañ ko jëlaat def enquête yu tegu si yoon képp ku fi tooñoon doomi jaamur toroxal ko ñii ñu tëj démocratie bi ñu bi def leen neex yàq image Sénégal ñëpp ñu si am responsabilité ngir yàlla ak yonent bi képp ku fi mos a ñëw ëllëg te nekk républicain démocrate nank si day leeral ku képp ku si amoon sa responsabilité nga euh, yoon teg la fi mu la war a teg te wax moo nag vengé wu waxu la mais objectivement parce que li xew Sénégal nii lu ñaaw a ñaaw moo xew Sénégal waaye nag comme que ñi koy dénoncé moom dañ ne ñoom ay dof lañ wala ñoom dañuy dañuy dañuy xam rek wala ñoom dañoo ñoom ñoo am problème nañ dem ba si kanam rek. àddina gudd na tànk lool lool lool Omar Bongo koo wédd laajal Ali Bongo keneen ak keneen falaayam jërë ngeen jëf.